ñaata ay nit nga gis ñu nekk ndakaaru jaal yóbbu di romb jàkka yeeg jumaa yi di dem di investir ci li nga xamante ni mooy milieu caaxaanari yi. Hmm. ñoom la ñuy tuddee fii sabar yi. ñoom la ñuy tuddee Grand Théâtre Sorano ñoom la ñuy tuddee ñoom la ñuy tuddee ñoom la ñuy tuddee mais duñu leen mës a ci conférence bu nga xamante ni religieuse duñ ko duñ ko di parce que pacte moo leen orienté ba noppi heure bu ko neex mu nga def lu mu bëgg mënoo ko def mu faat la. ñaata ci ay nit nga gis ñu jekkoo ci àgg seen taaw doo leen duñ la ko la. Hmm. dañoo def pacte boo xamante ne dañuy teyale seen taaw su taaw bi doful taaw bi day dee su taaw bi deewul dina lag. waa léegi léegi man Dabida foofu danga fay tegaat waa léegi yow man soxna Khady Gakou li fi Dabida wax mm-hmm. ah man daal dama dama nopp daloote na waa léegi yow lii alal jar na ko wala lan la mais am na ñu ko alal jaral. Hmm. comme li mu wax ni ci taaw yooyu noonu loolu loolu dëgg la. am na hmm. ñoo xamante ne dañuy def seen euh, dangay gis ñu am doom yoo xam ne dañuy am ay malformation. Hmm. ñoom ñu am alal ju dul xale boobu moo leen ko indil parce que xale boobu noonu lañ defee pacte. cey pour am alal. am na ñoo xamante ne nuñ ko mën a amee baax. allahu akbar nuñ ko mënee am amee baax na. mooy affaire franc-maçonnerie rek la moo ko fa indi. alal moo tax. alal moo tax nga dugg ci da nga fiy gis déjà gis nga te léegi nag xale yi comme ni mu wax rek xale yi lañ soxla de bu njëkkoon franc-maçon da nga daan dégg peut-être ci ay ñu responsable ay mag ak yooyu. Hmm. mais ay xale yu ndaw ñu ngi ci biir franc-maçonnerie. te xam nga franc-maçon yow euh, euh, franc ngay wax. Hmm. nii dinaa la ci lu leer hmm. bu njëkk franc-maçon yooyu. Euh, da nga daan jël say say say kii di tayale say say say loxo. mbaa nga tayale say tànk. mbaa nga kii mais léegi dañoo man ne benn genre association boo xamante ne dañuy ñëw naan kan mooy adhéré ñu jox la sa cent millions. kan mooy adhéré. kuy adhéré ñu jox la cent millions. nga accepté say cent millions xam nga lan la ñuy wax Hmm. kilifa diine yi fi nekk yëpp saagaal. Hmm? Hmm. Eh, c' est pas pour rien di gis gars yi di saaga waaw xanaa mooy mooy ki am na ku nekk ci TikTok bi di def noonu xanaa kon kooku. du du du am na ko am ñi ne ci TikTok bi. Ah. ndax ku xam tey yii ñoom ñoo ñooñu di wax ñi saaga seen ndey ak seen bàyyi ku ñu mës a yaakaar mooy ñi nga xamante ne ñoom suñu mag yu baax yi. ñoom nag si bu ñu demee ba judd doon ay xale yu xonk cur am courage taxaw di di naan ñi ngi jéem a daaneel nguuru suñu borom ndax nguuru suñu borom mooy ñi fi représenté suñu borom te ñi fi représenté suñu borom mooy ñi nga xamante ni wéet naanoo seen borom jël lépp jox seen borom dëddu àdduna ba tey ji àdduna dëddu leen ñoo wutali seen borom ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk ñuy représentant borom bi si kaw suuf nga taxaw di xul xotti seen warma ak di di saaga loolu neen la. Hmm. ah kon daal dafa am leneen lu làqu si gannaaw. modernisation la ci wàllum pharmacie. cey suñu borom. loo gis fii dañu ko moderne. ak mën a seetaan. loo fi gis dañu ko moderne. Hmm. bu njëkk da nga daan yónni xale mu bañ. kere hmm. wuñ ci euh, li nga xam te mooy càq-càq. càq fii ngay togg woo ko ne ko demal ma mu dem. am na wala amul. dëgg la formation ah. ni noonu la mel di. da nga daan dagg boo daggee ñu gis la ñu ne eh, kii de dafa mën a daa tayale wala daa yoole léegi ñu dindi moment boobu daal di indi boo xamante ni dañ lay jox fiche nga euh, remplir. ba pare ñu tegal lay conditions yi nga xam ne lii mooy condition yi ba noppi ñu ne la nag boo faatoo moom safara nga mm. d'accord. cay moo tax léeg man su may dégg ci ñenn ñu naan diw est-ce du mës a changer parce que daa jaay li nga xamante ne mooy mooy mooy kii ba noppi moom dafa jaay am bi xam na ni xëy ah, dafa jaay am weesu at bi at du ko weesu. cay xam na ni moom du weesu at bi xool leen ni ma la wax. te xam na li koy xaar 50 ans duñ ko ma am. parce que cinquante ans la ñu waxat tey moom ci pacte. ci ay suñu borom kii quarante cinq ans ci pacte waaye di mel melokaan ba noppi ku nekk ak la ngay choisir kii ne man damaa bëgg nekk koo xamante ni saa su may ñu déglu kii ne non man damaa bëgg koo nekk koo xamante ni damay am alal kii ne man damaa bëgg samay lépp mu nekk ay kër. Hmm. kii ne damaa bëgg samay lépp nekk ay tool xeet yooyu catégorie googu ku ci nekk ak lam la jaral waaye dañu ne la boo paree da ngay dem jaxal na ma directement. waaye loolu loo ci gis si loolu am na ñu si bëri ñoo xamante ne seen alal dañuy dee seen alal toppale. Mm. Mm. yooyu moo ko fi indi. Ah, alal gi alal boobu alal boobu du toog. Ah, déedéet alal moomu que ni nga ko amee moo tax. Mm. gis nga boo deewee alal jooju dalay topp. seen alal duñ ko bari na fi ñu bëri ñoo xamante ne tey jii ñu ngi dee seen i njaboot doon nañu si dara te pourtant ay borom alal lañu. seen njaboot doo si dara parce alal day naaw comme poussière. du ñu xam lan moo ko waral. yu si bëri nag la plupart nii lay demee. parce que da nga signé le pacte avec la diable Mhm. mais bis boo deewee jaabu pare na si yow lu mu la joxoon da koy nangu. Hmm. te bëggoon na lu mu la joxoon da koy nangu daal alal ba dafa delluwaat. day dellu lu mu la joxoon da koy nangu. mantu mantu léegi lan yaa de ces accidents yi ngay gis fii yëpp mu nekk accident bu la doy gën a doy waar. nga naan waa diw nan la def ba yéeg fii diw nan la def ba dugg ci suuf camion bi parce que teeloon nañ ko xamal ne ko ni nii ngay faatu. Mhm. parce que li ngay toog di ngay ah, gis kon daal yow maanaam si sa déggin si sa waxin li ma dégg day mel ni dañ lay programmer eh, eh,